soo ma takkee est que di nga ma bàyyi ma jàng soo ma takkee est-ce que doo ma yóbbu ci appartement bañ maa yóbbu ci kër këru famille c'est des choses yoo xam ne ki ngay nekkal muy jigéen day bëgg nga promettre ko ko pour moom tamit mu mën a aar sëyam est-ce que promesse yi Mouhamed di wax ne euh, nañ ko arrêté wala nañ ko bàyyi mën naa ñàkk ci ñaari relation ci relation yu mel noonu. effectivement. <coughs> merci beaucoup madame Diallo. Mm-hmm. mën naa ñàkk ci kii kii ki nga xam ne mooy promettre. Mm-hmm. comme mën naa ñàkk ci kiy demande promesse demander promesse pourquoi mm-hmm. la promesse de de de de de déménager dans un appartement la promesse de de de de, de travailler la promesse d'étudier pourquoi mm-hmm. promesse non man damay wax ne. Mm-hmm. d'abord il faut qu'on parte à l'idée que euh, labat ak sëy du benn malheureusement tant que mënuñu def la différence de nos jours. benn couple du stable. Mm-hmm. pour la bonne et simple raison. Mouhamed en matière de labat dara du force ñaari way ñaari ñaari nit la yu am projet di rectifiantete di ku nekk di jéem a jubbanti sa moroom ku nekk gis say defe moroom fexe mu deñ mu deñ ci moom ku nekk effectivement gis li la neexul ci moroom sa moroom ngay fexe di ko dindi am na autorité boo xam ne sax comme elle l'a si di dit euh, euh, Sophie daf ma doon jiitu foofu noonu moom parce que xam na ne fa laa jëm <laughs> am na ci ñoo xam ne sax soo ko amee sax ci audace sax ñu ne la bu ma fat du église du jàkk <laughs> c'est ça la vérité parfaitement parce que effectivement et a raison labat bokkul ak sëy Mouhamed da ngay wuyoo sa santu papa pendant vingt cinq ans tàkkusaan jot ci deux minutes ñëwee la madame Dieye nga ne wii attention c'est ça la vérité bu ñu naxante nañu bàyyi caaxaan yi ñu nekkee tu comprends sëy sëy affaire dëgg la parce que il faut toujours savoir faire la rupture entre njànqate doxaanante ak sëy du benn di nekk ak jigéen pendant cinq ans di ko labat doo gis kenn ku ci wax doo gis kenn ku mu jar jóg benn tàkku tàkkusaan bu ne dëgg jot na rek mag ñi bàyyi seen ay soxla daje si jàkk ja ça veut dire ce que cela léegi nag liberté bi nga xam ne ak droit yi nga xam ne moom la ñuy sàkku pour jigéen ñi daf ci bokk euh, ñàkk mën a def la différence entre jigéen bi nekk célibataire ak jigéen bi nekk ci buumu jàmbur lépp loo xam ne nii parce que changement de la tubaab dafay war a di wax dafay faral di wax ne tout changement dérange boo jógee ci ak sa célibataire ñu muur la nga toog sa papa bi la jur sax ak sa yaay xamal ne bés ki tey sama lépp wàcc na wàcc amatuma dara ci yow lépp sa jëkkër moom la lépp moom moom la war yàlla teg ci ne su la ba su la mayee léegi tàkkusaan bàyyi woo la léegi jëkkër woo la wuyul jëkkër bàyyi bàyyi te moo la jur ci gañoom saa veut dire ce que cela veut tant que nag mënuñu def laa différence entre labat ak sëy bëgg mu nekk continuité per junj na ko sànq mais il est évident euh, Mouhamed que ki nga xam ne moom la ñuy labat liberté ba nga amoon yow ah ca bañ lay labat. Hmm. loo ko am boo nekkee ci buumu jàmbur. Hmm. dafa war a continuer. Hmm. parce que li ñu tuddee ñoom li ñu tuddee li ñu tuddee euh, xëy na promesse wala wala nañ ko tuddee nu mu la neexee promesse moom damay wax léegi ne même dans la vie courante euh, euh, normal nii sax. wax wax loo def baaxul. Mm-hmm. très sincèrement promesse moom wax loo dul def moo tax sax ñuy wax la promesse est une dette donc loolu du ci appréhender parce que ce qui se passe entre ñaar ñuy labalante du ay promesse ay rectificatif la yoo xam ne euh, dafay am ci ñoo xam ne dañuy labatante seulement nag comme ni ma wax euh, léegi nag sunu jamono yi ñu nekk parce que ak ak célibataire moo neex neex goo xam ne euh, parce que neex bi xam nga mooy lan. c'est-à-dire da ngay dem heure noo ko sentiré mhm. da ngay def li nga sentir ku la neex ngay àndal fu la neex ngay dem lu la neex ngay wax ku la neex ngay waxal mais buñ la yëkkatee jox la nga am borom kër mais sañ na ne diw bul ànd teg moom am na ci droit. waaw téeméer mu ne naa la diw bul ànd teg moom am na ci droit. parce que il c'est à toi de faire le choix est-ce que kii ñu may tere gënal na ma sama foyer. tu comprends ce que je diw. bëggatuma nga wax ak moom. Eh est-ce que kooku ñu may tere kooku ñu may tere jaral na ma sama foyer lépp damay wax ne ki nga xam ne moom lañ la may yow wala ñu dénk ko may sax laay wax parce que maye la dañaa ñi ngi maye diw mu ñu ko fi jéem a naaj naajsal naan wooye dañ ko ko dénk ak dañ ko ko nii nii nii dañ ko koy dañu maye nañ diw la ñuy wax foo jëm maa ngi dem dañuy maye diw la ñuy wax ok donc su boobaa euh, changement de statut boobu. mooy waral yow liberté ba nga amoon yow de mouvement d'aller et de venir du benn yow bu fekkee ne célibataire nga da ngay yëg lu doog a dem xëy na sax sa papa ngay tàgg euh, ngay yëgal xëy na sa yaay ngay yëgal mais bu dee da nga dugg ci buumu jàmbur da ngay tàggoo damay faral di wax souvent ne la différence qui existe entre tàggoo ak yëgle du benn yëgle da danga koy wax wane ginnaaw dem tàggoo c'est dans le but ñu ne la waaw wala déet c'est ça la différence merci beaucoup yaa ngi dégg tàggoo tàggoo c'est dans le but ñu ne la waaw wala déet yëgle nag da nga naan Mouhamed mu ne naa man la ma dem te ñëw wala demee demee cees laay bu ma xëyee cees laa jëm tu vois ce que je veux foo jëm mu ne la cees kooku ba tey tàgguwu la da koo laaj mu wax la ku ñu yëgal ci jigéen bi génn yëgal ak kan la ñuy tàggu borom euh, ku ñuy kan la ñuy yëgal da nga ne yëgal ak tàggu du benn ma ne kan la ñuy yëgal ak kan la ñuy tàggu jigéen la ñuy yëgal góor dañ koy tàggu jigéen dañ koy yëgal ah non dama nga ne avant ngay marié say parents da nga leen di yëgal waaw mën nga leen yëgal wala tàggoo ça dépend mën nga leen yëgal comme leen tàggoo am na ñoo am non je veux dire que cest dire sama dama la boo xam ne la c'est encore beaucoup plus beaucoup plus formel bu dee jëkkër Mm-hmm. foofu laay waxee quoi ça li may wax aussi dégg lay laaj. mais célibataire bi kilifteef la buy migrer entre parents dem si jëkkër rek. célibataire bu am kilifa buy génn sax day tàggoo. jëkkër nag daf ci gën a daf ci jëkkër nag a te doy waar nag. te li may wax aussi du samay wax waxi yàlla c'est vrai. exactement donc daf ci gën a formalité encore. Ah. barki démb rek maa ngi dégg. soo euh, t'es <laughs> pas door ki démb rek maa ngi dégg effectivement euh, Moustapha euh, Mouhamed alaaji Moustapha Gueye di koy wax euh, sëñ Moustapha di wax ne jigéen ñetti condition la ko yàlla tegal jullil jaamul jaamul sa borom amal sa mu jëkkër dem àjjana waxu ko sa waxu ko feneen tey dama dooleel la ci ni góor am na droit bañ a tàggu soxnaam génn dox ay yitteem te lislaam du ko ci teg daan mais jigéen bu génnee këram te tàgguwul jëkkëram tànk bu mu teg yàlla nga ko ci bindal bàkkaar ba kar muy mi nga lay rëbb ba ba keroog ngay dellu si yàlla boo tukki ba boo ci deewee boo ci boo ci deewee boo ci deewee doo escale boo ci deewee doo escale mais Mohamed boole si tamit nekk lislaam <laughs> yéen a ngi waxul ne góor waroo tàggoo rek góor waroo am respect tamit pour booy génn ne maa on ne parle pas de respect benn encore une fois non on parle pas de respect. non jaxase bul jaxase yu bokkul l'islam may eh. ma tuuti. bu fekkee jigéen war na génn day tàngoo on est d'accord mais góor booy parle pas de respect. encore une fois le respect chaque. ba ci ñun ñu toog ci plateau bi donc bul amal gamee. respect ak obligation. voilà bul dugg non non non non bul dugg ci on parle pas de respect. Eh, c'est-à-dire góor yow bi la naan euh, xëy suba wala ne sa soxna mu naa ah, nga ne ko demee suba xëyee Cees laa jëm xaaroo ci mun la waaw demal wala toogal loolu mooy yëgle. am na ñu am respect madame suba de damaa bëggoon dem Thiès. non oh, non damaa bëggoon dem Thiès loolu du respect. dafa neex loolu ça n'a rien à voir avec le respect. loolu lan la. Oh, dama ne loolu damaa bëggoon dem Thiès. waaw xamul loo fay doxi bu la nee dem looy def da ngay toog. non waxuñu loolu. ak ki génn dem yoonam ak ki génn rek dem yoonam. waxuma génn dem yoonam. waaw mais attends wax loolu lu ma waxul. mais waxuñu la loolu yow ki daf la dem yoonam. waxuñu kenn mënu ko assumer kii daf la laaj ndax góor bu jóg génn waaw ak góor bi jóg ne ko madame kat maa ngi dem Thiès te ñëw loolu. respect wala lan la si jabaram mais question respect c'est une disposition normale d'un couple hmm. encore une fois d'accord je ne parle pas de respect respect encore une fois c'est valable pour toute personne ba si ñun ñii déggoo ma la ba si ñun ñi nekk ci plateau bi mais su ma xëyee Thiès laa jëm bokkul ak nga jàkkaarloo sa jëkkër ne ko suba dama bëgg a dem cees di xaar waaw wala déetam loolu laay wax man ne me parle pas de respect comme si ku génn sa kër ne sa jabar ma dem Thiès ta ñëw respecté woo ko arrête moi ça. dama ne ku toog sa kër génn. waxuma sa jabar taxaw nga romb ko dem sa yoon. dox ba ñëw waxuma loolu waxoo xaar ba jot parole yow. Eh, arrête waay yow nañuy jéem a eh, kii wax affaire l'islam man ma lay intervenir